Thank you. mbokk yi topp 24actu.com dellusiwaat nañ suñu émission bi nga xam ne moom lañ tuddee taaru Sénégal taaru Sénégal nag bu ñu ko waxee xam ngeen ni Sénégal yàgg naa taaru ne lépp loo xam ne dafay taaral Sénégal di ci dalal ñi xam ne ñoo di suñuy gan di ci indi ay thèmes yu ama am solo tey ji nag ñu daal di dalal ki nga xam ne moo di Soxna Bintu Lo ñu daal di fas yéene ànd ak moom ci thème bi nga xam ne moo di sëy yoo xam si ne dañ koy takk du yàgg do dara ñu daal lay annoncé ne tas na ñu daal ci fas yéene waxtaane tey ji waaye nag laataa ñuy dugg ci li nga xam ne moo di thème bi dañu bàyyi suñu gan mu daal di nuyoo ba pare ni nuy nañ la waaw maa ngi lay fay maam Faty macha allah di nuyu ñëpp ñi nga xam ne ñi ngi ñuy teewlu di wax asalaamaaleykum wa rahmatullah kenn ku ci nekk rek eh, ñi safoo chaine bi eh, di ko suivre fu ñu toll kenn ko ne ñu ngi lay fekk fa nga la jox suñu loxoy xool di la wax asalaamaaleykum wa rahmatullah waaye nag di jiital ci nuyoo bi Cheikh Mountakha Bassirou Mbacké xalifa général Mouride di ko mu yàgg fi loolu te wér noonu la ñuy jaare nuyu njabootu maam Cheikh Ibrahima Fall gépp di ko teg ci loxo sëñ Cheikh eh, Jëmb Fall xalif général de Baye Fall waaye mënuñoo nuyu tamit te nuyuwuñu fa ñu bàyyi ko ñu ngi nuyu njabootu sëriñ Maxtaar Bintaloo gépp di teg nuyoo bi ci loxo sëriñ Falluloo xalifa sëriñ Maxtaar Bintaloo eh, bu soobee yàlla incha allah ñu fas yéene dugg ak yéen ci tam bu am solo ñu ngi lay déglu. waaw jërëjëf soxna Bintu ci nuyoo bu matale boobee waaye ñu daal dégg comme ni ma ko waxee woon sànq nag thème bi dégg ko ñu daal di fas waxtaan ci li nga xam ne moo gis nañ ne sëy yi léegi da cee bari lool te lan moo ko waral soxna Bintu lan moo waral sëy yu bari di tas léegi. waaw maam Fatou sëy yi divorce yi bari li ko waral bëri na li ko waral yu ngi fi yoo xam ne bokk na sëy en général tas waaye li ci ëpp importance daal ci ko ci li tax sëy di yàqul moo jikko yi moo yàqu niñ ko doon foogee ak uh, suñu maam yi daan def ak suñu waajur yi uh, demeetul noonu gaa uh, am na ñi nga xam ne maam yi doon sëy koy sëyee parce que sëy dafa bari ay façon kii day sëy te yàlla rek tax kooku quel que li koy li koy jeexal ci yàlla rek lay kii sëy ngir dafa lu muy seet ki nga xam ne dafa am lu muy seet bu demee li muy seet delluwaat kii dafa sëy sëy boo xam ne dañ ko forcé mariage forcé bari na lu muy tax sëy du mel na mu war a mel euh, sëy boo xamante ne itam li la ci dugal ak la fa nekk bokkuñu bokk na ci lay gàttal ab sëy li ko mën a yàq lépp bari na bari na loo xam waaw soxna Bintu ma daal di dégg tamit ñu naan léegi suñu jamono ji ñu toll ñun xale yi dañuy sëyee mag ña daaw ñu ko sëyee mag ñi daawuñu ko sëyee ndax est-ce que loolu euh, dafa bokk ci lii nga xam se ne dina indi ay jafe-jafe ci sëy wala waa xam nga boo comparé démb ak tey doo mën a dem gaa parce que démb euh, mag ñi dafa am ay valeurs yu nekkoon ci ñoom euh, démb mag ñi ni ñu doon dunde bokkul ak ñun ni ñuy dunde démb mag ñi dara dara dara dara dara kiiwu leen woon dara yóbbu dara fëkku leen woon waa mag ñi démb xamuñu woon lan mooy matérialiste léegi génération bi ñu tombeel ni nga xam ne ci la sëy yi gën a mën a yàqu xale yi dañoo matéria dañoo matérialiste de trop ki nga xam ne dafa dafa gëm matérialiste euh, kooku loolu bokk na ci li nga xam ne gaa mën na yàq sëyam mais démb ak tey tamit ci maam yi euh, da nga daan jël koo xamante ne dañ naan jekk na nañ ko ko may léegi nag jekk na amatul woom na rek moo am déjà woom na bu fekkee moo la dugal ci sëy fi woom bu demee bu woomatul tàggoo mën na am mais góor gi tamit bu fekkee bi muy takk soxna lim ko waxoon ak li am dara bokk ci itam loolu mën na mën na bokk ci li yàq sëy parce que nit tamit soo ko dee bëgg na nga ko wax dëgg déjà te xale yi léegi boo dee seet euh, ñu lay ngoro ba ñu lay takk li euh, liñ lay li ñuy dund ak yow lépp 95 pour cent yi bokkul ak li fa nekk voilà bokkul ak li fa nekk donc jigéen ji tamit euh, bu fekkente ne dafa dafa dafa jàpp ne sëy moom benn benn laps de temps la rek bu mu war a jël ci vie doxal ci ñëwaat nekkaat ci leneen loolu tamit buñ ko tànk jëlewuñ loolu ci bopp xale yi sëy mën a mel ni mu war a mel mais tamit bu ñu lay wax démb ak tey tey liñ la bëgg a wax mooy jamono moo metti jamono moo metti ñi mën a muñ mettitu jamono bariwul waa ñi nga xam ne dañu foog ne sëy euh, avantage daf ci nekk sëy amul benn avantage bu àddina déedéet euh, sëy bénéfice bi ci nekk mi ngi ci sa njaboot mais njaboot googu nag balaa nga koy balaa nga koy balaa ngay découvrir yow say say say say bénéfice il faut mu metti il faut mu metti te dafa yàgg parce que sëy fanweeri at la donc dañ la wax ne la fukki at yu njëkk yi sa borom kër moo koy sëy parce que ku ne xam na ne góor bu buy doog a marié euh, lépp day day yomb lépp day possible pour moom mais bu ngeen demee ba 10 ans yu njëkk yi jàll ñaar fukkeelu at bi jigéen ji moom mooy sëy mais nag bu defee ne bànnee xam moo ko fa bàyyi parce que njaboot gi la xamul lu mu leen di def mais fanweeri at yu fukkeelu at ba ca topp di fanweer bi dañ laa wax ne la gaa di nga ree wala nga jooy waliyaasu bi laa yàlla na tombeek ñuy reyee ree buñ ca tolloo mais loo ci mën a dégg rek euh, Mame Fatou euh, sëy mi ngi yàqoo daal ci jikko yi muñ daal feek mënuñu caa delluwaat sëy mënul neex. waa bint waa muñ googu dëgg la de ndax moom lañ wax ci sëy waaye est-ce que nga jàpp ne tamit góor ñi suñu góor ñi njëkk ña comme te ñi nañ suñu maam ya daan yore jigéen ñi yërëm leen kii leen est-ce que léegi amatina ba jigéen ñi mën a muñ euh, dëgërlu ci seen sëy nga xam nga dañuy wax ne Mamour Anta Sali moo fi bareetul moo tax soxna jaara mënatu fee yaatu gaa lool la waaw mais waxin la rek dégg la laaj parce que euh, dañ la boo déggee ñu la Maam Mor Anta moo fi amatul moo tax Maam Jaara mootu fi am foofu dañ la bëgg a jàngal rek na la mag ñi bu njëkk niñ daan yore seeni soxna mooy yërmande góor de yërëm jigéen maa fàtte jigéen dafa néew doole jigéen soo ko bëggee yor te te te te te te doo ko yërëm doo ko dimbali te xam nga nit koy mënul juge ci loxo doomu aadama di dem ci moom waaye kon nga dalal xelam sëy dafa ànd ak xel mu dal sëy dafa ànd ak jàmm sëy dafa ànd ak fo sëy dafa ànd ak ree bari na borom kër yoo xam ne lii tax seen soxna yi suur sëy ba ilaa yow mi diini ñoom ñoo koy dund ak ñoom xam nga nit ki ni nga doon waxantaaneeg moom ak di foowee moom ak ree ah, ci ngoro ba bi nga ko takkee te doxale woo noonu boo yaakaaree ne sëy ba mën na continuer tamit du continuer góor ñi am nañ defoo ji comme quoi jigéen ñi am nañ defo jigéen ñi gaa nag moom wax dëgg yàlla lu bari man samay émission jigéen ñi laay gën di dal parce que nit ki su fekkee dangaa bëgg mu jariñu da ngay jël lépp rek nga teg ko ko loolooy tax moom mu mën a doon jàmbaar dëgg dëgg dëgg dëgg fu mu toll di bàyyi xel boppam loolooy waral muy dugg ruq su mën a kanam di yedd boppam di xool ba xam moom fan la tool di natt boppam ndax li ko war mi ngi ci wala déet doomu aadama dafa war di am référence référence boobu nag boo ci dee sukkandiku ak di fàttaliku dina waral yu baree baree bare xëy na ak man ak man ak man yi dina waral sëy yu bare waaye tamit perte de valeur dina waral sëy yu bare ndax jigéen soo ko yoree dundaloo ko woddoo ko mayoo ko jàmm teraloo ko bàyyi woo ko mu liggéey boo fekkee nee nga seen ànd dina yàgg tamit dëgg nar naa làqu te xam nga waxtaan bu naree neex eh, maala mag du ca jib bu dëgg bu dëgg bu dëgg naree làqu rek na ci maala mag jib su boobaa rek eh, dëgg dëgg dëgg dëgg nar naa làqu nañu yërëm jigéen ñi daal buñ bëggee sëy waaw waaw soxna bi du ma dikkaat tamit fi nga xam se ne fi nga doon waxee sànq pour ñu gën a yaatal ndax sànq da ne euh, léegi jigéen ñi tey ji sëy da ngay gis ñàkk waxante gi dëgg am ci est-ce que nga yaakaar ne góor ñi fi ñu toll nii loolu tamit bokkut ci li nga xam ne léegi dina waral sëy yu bari ndax euh, jigéen ñi dafa am loo xam seen léeg-léeg dañ koy bàyyi xel ci sëy muy tey ji baatu euh, waxante dëgg ci biir sëy daf ci am solo te léegi tamit dafa nekk loo xam se ne tamit bareetut ci sëy yi tey ji nag nit ki bu bettee ci yenn mais di tax tamit seen diggante lu ci bari di ci xajam. waaw maam Fatou ñu jégalu ci kàddu gi mais dañuy damay wax toujours ne man souvent damay wax ne nit bu fekkee li ngay waxtaan ak moom dangaa bëgg mu dégg ko bul ko di cof euh, dëgg bu jeexee ci ànd dara desatu fa. ba pare sëy dafa nekk loo xam sëy dafa sacré ñaar ñi ko séq diggante soxna ak boroom këram day diggante dafay diggante boo xam ne dara mënu ko remplacer moo gën a sacré sax que dund doomu aadama ak waajuram ki Euh, mën nga ni euh, ci loxoom ngay mujj ci ngay njëkk parce que kenn bu dee borom kër gi euh, ci wetu soxnaam fi lay fanaan fi lay yeewoo soxna si tamit kasaalika naka noonu ñooñu ay complice lañu war a doon te dafa am couple yoo xam ne complice bi war a am ci ci ci seen diggante amu ci te loolu tamit li koy dindi mooy ñàkk waxante dëgg xam nga nit bu fekkente ne da ngeen a war a dund à vie wala ngeen bëgg ko parce que benn ànd bu bu bu bu buy continuer à vie amul parce que sëy sëñ Tuubaa dafa waxoon ne jàmm du ci njëkk mujj ci li tax jàmm du ci njëkk mujj ci mooy tàggoo dina am ci ngeen di dund wala faatu ñëw parce que benn ànd buy wéy amul ba tax na kooku su fekkee da ngaa bëgg a ànd ak moom te ànd du du du ngeen ko tënk ci dëgg akuk dëggu kooku seen diggante du mën a neex jigéen ñëpp bëgg a sëy comme ni ma koy waxee toujours jigéen ñëpp bëgg a sëy gis nga jigéen joo xar xolam mooy li nekk ci xolub marchand ambulant magasin rek moo nekk ci xol ba waaye jigéen joo gis sëy ba maqaan fa rek moo nekk ci xolam parce que loolu mooy ndamam loolu mooy ndamam te kenn ku nekk askan wi nga juddu dinga nga sëy ba tax ñu bëgg askan woowu di ca jëli di ca tànni waaye di nga sëy ba ñu bañ askan woowu bu buñ ca na bu desee ci ci soxna kooku da koy jaral barzaq du takki soxna donc jigéen daal am na am na am na am na am na bu rëy ci sëy ci biir néegu sëy mais góor tamit aussi. waaw léegi ñu dikkaat ci tamit ci li nga xam si ne góor ñi comme ni ñuy toltiree jigéen ñi ndax dañ ne jigéen dafa war a sëy rek ba tax na tamit métit yu bari dafa am ci eh, néegu sëy yi ndax da ngay gis góor tamit takk la ba pare ci ni nga ko waxee sànq ni ñu ne ah jigéen kat dafa war a mën a muñ surtout yàlla boo wax sax comme ça li nga waxee yàlla bu mu am benn sëy sax suñ borom dogal ko mu daal di tas bu tasee fi mu toll ni géneen góor ko tey jógewaatee baa topp ko wala dara tax na sëy boobu lu mu fa dund lu mën a metti metti ma ngay muñ te fekk na amaana ma ngay muñewut ci xol bu sedd te loolu dañ ne dafay indi ay problème ma faati boobu sëy amul sens sëy tànk li nga ciy muñ muñoo ko te yàlla yi tax sa xol ci boppam supporté li nga xam ne moom ngay muñ mu leer la na yow lii ngay muñ yàlla kese kese kese moo tax te làmm xol bi daj ci ne lii mën nga ko muñ ba fu ko yàlla yemale muy noonu bu bu fekkee dangay ngay muñ ngir ñàkk pexe rek man ngaa ñaan baat dem. waaw muñ gi dëgg la waaye est que tamit jaadu na tamit jigéen méttit yu bari dajewut ci sëy de sëy donte ne wax nañ ne muñ na de waaye est-ce que du méttit yu bari war nañ ko mën a muñ ñun. xam nga yonent bi sallallahu alayhi wasallam li mu ñu jàngal ci sëy du du du du loolu du torturé yonent bi sallallahu alayhi wasallam moom mi nga xam ne eh, ku ñu bind moo tax ñu bind la moom da daan boot ay soxnaam di daw di daa di dóor dàqeek ñoom loolu. macha allah gaa mënatoo koo gis léegi parce que góor ñi am nañ complexe ko am complexe bu tool ne xoolal tey ànd ak sa soxna ngeen di dem nga ngàbb saak ameem ngeen jiitle di dem sax góor ñi dañu am complexe boobu rey nañ ko benn mhm. euh, nga toog ak sa soxna ngeen di waxtaan nga reetaan sax sa bëñ génn jafe nga ne loolu dañ la koy yebe mais couple bu amul bu amul foo amul ree amul dàqe amul bëre amul kenn ku nekk féete sa morom fi fi nga ko war a féete déjà léegi ba ban bànneex moo am foofu. xaay ba day des bu baax sax nga ba ci doom ji ngeen sëkk sax nga xam si ne yàllaa leen ko boole sax da nga ciy gis ñoo xam seen tey ji xalaatuñ ko loolu ma gën a jaaxal. doom da nga ko li ci yaay war a def loolu la papa war a def ci doom. te leen a mën a war rek tey ji na dem daal ba majeure nga xam si bu dikkee nag ñu ne sama doom. bu ba muy metti nag jigéen bu jooyee sax duñ dangay romb sax mu romb jàll ne la kaay jël sa doom wala. jigéen mooy doon yaay eh, fi ngay njëkk a xoole rek ne doom moo tax doom fayul yaayam. macha allah gaa doom fayul yaayam parce que bu méttee ba métti ñu bàyyee la ko su jooy yi baree kaa sa doom ji ngay dégg bu feebaree fajal sa doom ji moom ngay dégg euh, te euh, da ngay gis ne sax dem nañ ba tollu ci jamono boo xam ne sa doom mën na feebar nga nekk ak moom moo xam hôpital nga nekk soit yaa ngi nekk ak moom di yéeg di dem ak ñëw ak euh, quel soit alpha noo mën a lijjantee wéru xale bi papaam mi ngi ci yeneen yeneen yeneen yeneen yeneen yitteem jigéen sax euh, maam Faty bu dee accouché toll ci weeram dem hôpital war a am doom rek borom këram daf ko war a assisté taxaw bu baax assisté la ba nga ba nga ba nga mucc ci jàmm ak salaam yaa ngi dégg mais euh, am na góor ñu bari tamit li leen di xañ seeni soxna ci seen jikko la parce que dafa am jikko yoo xam ne aussi kenn mënu koo nekkaale dégg nga góor gi nga xam ne du la dundal du la wodd soit danaan la defal añ ma defareer comme li xew ci dëkk bi léegi boole kook di la saaga ndey bu dóor jotee mu dóor bu xas jotee mu xas te bu bu amee 50000 ci poosam jël benn 5000 ba tegal la ko fa pour une semaine jël 45000 yi génn may ko xale jigéen ñi ci mbedd bi nga xam ne soo ne ko sëyal tamit sa njàmbaar faaw di jàmbaar gi loo loo loo kii da ngay daw da ngay daw laay bëgg waxee sax ndax dama gën a jaaxle ndax dañ ne muñ sax baax na waaye muñ ba ci muñu dóor am na góor ñoo xam ne dañuy dóor dóor bokku ci sëy te lislaam santaane wu ko bi mu lay loo Euh, bi bi bi fi duuru fi dóor yi di di di toll muy lu la lislaam sant muy soxna si nga xam ne dafa juum juumte goo xam ne kooku charia may na la nga wàññi ko waaye daf laa wax ne la sax bu daal di dóor mais daf laa wax na ko tongu waaye tongu bi tamit bu mu romb ñetti fan ba xam ndax tongu gi nga ko tongu ndax am na jigéen ñoo xam ne euh, supporté nañ lu nekk ba mu des seen borom kër tongu leen donc kooku boo ko tongee trois jours la mën na dogal ngeen am benn euh, terrain d'entente ngeen trouvé seen terrain d'entente bu pour mën a àndaat xëy na bu fekkee yàlla dogal na seen àndaat war a mën a nekk eh, bu fekkee loolu jaal na tamit eh, dóor yi la lislaam may tàpp la la wax tàpp boo xam ne boo ko defoon sax xale gaa du jooy mais loolu danga koy wan rek ne ko aw ma yéene dóor la mais yoon yarlu na la rek dégg nga te dama laa bëgg a xamal ne jigéen ñi li tax ñu sonn xëy nañu ñun ñëpp am nañ maram biraan am na nag jigéen ñu baax ñoo xam ne eh, la fa maam daan jaar ba léegi ña nga fay jaar seen askan wañ juddoo lañ leen fekke woon ba tey ña nga ca am na góor ñi itam ñoo xam ne kasaalika la même chose ci côté boobu mais dafa cee am ñoo xamante ne nii eh, neexuñoo neexuñoo xam daal ci ban ci fan nga leen di qualifier mënoo koo xam ndax góor gi nga xam ne eh, surtout li gën a bari léegi sax balaa ma koy fàtte li gën a bari mooy góor goo xam ne liggéeyoo te fas yéene yor jabar. waxal waxal ca kaw. dégg nga yow xëyoo góontoo da ngay taqale dégg nga am foo xam ne da nga fay dem am loo fa taqale boo génnee ñëw def ci dépense li ci des nga yaa ma gën a xam may jigéen mu jënd connexion te yow sa jabar sax boo demee amul téléphone 5000 francs li ci gën a kii li ci gën a doy mooy bu ma waxee sax ñu yaakaar ne sax xeeti bañ wujj la waaye li ma gën a jaaxal mooy suñ jamono ji da ngay gis góor goo xam ne mënoo la nga war a mën ba pare ñu gis la may lam ñaareel nga tey ji da nga fiy gis am na si ñoo xam ne tey ji seen i ñaareel ak ak seen i mën a ñëw bokk sax nag nii te dama defe ne sax loolu sax ah, góor goo xam si ne tey ji am na fu la ci boppam war na ko mën a bañ tale wala léegi jigéen ñi ñoo bañatul dara nga yaakaar waaw mooy mooy perte de valeur yi ma la waxoon sànq bi ñuy commencé jigéen moo xamatul boppam jigéen moom moo xamatul mooy kan jigéen moo dem ba toll ci moment boo xam ne dafa réer dafa réer li ko réeral nag mooy toll nañ ci jamono joo xam ne méttitu jamono dina dem ba euh, nit ki personnalité bi mu waroon a am dignité bi mu waroon a am day dem ba def koy ñàkk dama laa wax ne la sëy yu tas yi métti na torop mais d'accord naa ci benn côté soo demee ba nar maa mbaam loo soo demee ba xamatoo sama valeur soo demee ba tegatoo ma fenn soo demee ba xamatoo maay kan soo demee soo demee soo demee extra extra ba nga xamante ne li tax nga jóge fa foo ko foo exposé li tax nga jóge ci sëy boobu rek dangay am raison est-ce que est-ce que tamit soxna bi fi ma yaakaar tamit ma yaakaar ne war nga fee mën a ñëw est-ce que du jigéen ñi tamit dañoo yomb ci góor ñi nañ war a yomb góor jigéen jafeetu ko moo tax mu yaakaar ne fu mu tey fu mu war a wàcce rek war na mën a amaat soxna est-ce que tamit loolu taxul tamit jigéen ñi ñu yomb leen noonu. waaw loolu bokk na ci e, mooy góor ñi e, e, teralatuñ jigéen teraanga jay tax buñ ko yoree sàmm lañ ko terale woon xam nga ki nga xam ne bi mu daataan takk soxna day teel a xëy di guddee wàcc te li mu am lépp doole boppam moo ko may sonn na doog koo am kooku bu yore ba bu jëlee teraanga teral soxna waaye nag euh, takk soxna si nga xamante ne danga ko bëggal sa bopp encore na nga bëggal sa bopp ba tey bokk na ci li yàq sëy yi demal sa bàjjen diw may la soxna loolu amoon na fi mais daf fi amatul parce maam ñi doon dund loolu ñoom xamuñu woon bëggeel ñoom li ñu xamoon rek mooy war nañoo ànd ànd nañ war nañoo sàkku njaboot ci seen diggante sàkku ko bu màggee ñu yar ko niñ ko war a yare mettre ko dans bon tre très mettre ko dans les très bonnes conditions loolu lañ doon dund mais dañoo toll nag ci moment bi nga xam ne nit ñi mbëggeel la ñuy dund ki nga may soxna te bugg ko kooku waññal nga ko ay soxna mais ki nga may borom kër te bugg ko kooku waññal nga ko waññal ay sëy ki nga xamante ne euh, euh, dafa am kersa ba tax euh, lu mu dugg xëy na peut-être kersa gu bari moo ko ko yóbbee kooku tamit nar nañ ko maanaam àddinaam dafa nar a metti parce que am na jigéen ñoo xam ne tamit ñu danañ dugg ci mbir bëgg taxul ñu dugg ci peut-être respect moo tax ñu dugg ci. ak ak baatu kilifa wala kersa wala baatu kilifa te sëy dañ cee war a jële léegi baatu kilifa parce que xam nga lan moo tax. ma leeral ko parce que léegi dañoo toll ci réew moo xam ne dañoo toll ci jamono joo xam ne lu fi waaye di waxati bay boo nga média néewuma da dàquma kilifa mais dama wax ne kilifa yi nañu daan ànde ak daan ko maye seeni doom li leen boole ñuy sëy jamono booba la amoon ak lañ doon dund moo amatul maam Faty daan nga sëy ci kër ba sa taaw euh, màgg sëy te benn mbubb bu baax booy demee xew ngay am dañoo génn ci jamono boobu daan nga dem sëyi sa borom kër am ay tool nga am ay tool boo xëyee dem ci sa toolu borom kër bu ngoonee nga dem ci sa toolu ngoon sa toolu ngoon nal boobu yow soxna si di sëy ci nga daan faj say soxla bu fekkee sa doom mi ngi fenn ci nga ko daan dimbali su fekkee am nga loo war a def ci sa biir famille ci nga ko daan dindi di ko ci def moom nga daan yo yokk njël amul woon parce que dagga jaa ngi ni gerte gaa ngi ni ci la ñu am dawlin ci la ñu am gerte et cetera et cetera li ñu doon dund bokkul ak léegi benn néegu ñax la daan doon boo xam ne bu bu bu ñu na bu nawet bi ñëwee macha allah ñu am gattax wala ñu am xat ñu changé eh, ni ñu wëralee néeg bi saaketaat kër gi léegi kon sëy booba boo bëggee comparé sëyu démb ak sëyu tey du mën a nekk te léegi damay gis ne tamit ba tey suñu maam dafa am ñoo xamante ne tey ji dañuy xool foofu bëgg ñu fekki te mënta nekk ndax bokkuñu jamono tamit muñ nga tamit duñ ne amatu fi ba tey waaye tamit góor ña fi nekkoon nekkatu fi loolu moo tax tamit dañ cee war a dikkaat wax ci lu bu baax a baax ndax jamono jooju bokkuñu ba ci léegi tamit sëyu bokk sax dañ ko dañ ko dañ ko jël sax yaakaar ne moom kese war a mën a nekk xam nga sëyu mbokk xam nga sëyu mbokk man bëgg naa ko trop mais dama ko xaw a ragal xam nga sayu mbokk li tax amatul benn chance euh, su fekkee sayu mbokk dañ ko doon def pour rafetal mbokk dañ doon def sayu mbokk pour dëgëral mbokk dañ doon def sayu mbokk pour garder famille dañ doon def sayu mbokk aussi pour euh, comme ni ñuy def naan kii néegub géej la bokk kii néegub seey kii néegub euh, sàngom affaire yooyu dañ daan mag ñi biñ ko daan def dañ daan pour garder seen ay néeg comprendre nga fi may waxee mais léegi man sayu mbokk dama ko dàq xam nga lu tax am nañ am nañ naay am nañ naïveté bu toll ne bu sëy bi tasee rek mbokk yàqu sëy bu fekkee dafa dem ba nar a yàq mbokk amatul sens amatul benn sens parce que yow bu fekkee ne sama doom day sëy ak sa doom man sama doom bu jigéen moo ñëw sëy si sa kër euh, li gën a li gën a grave tañ di ko def léegi mooy man sama ay erreur yi doom duma ko nangu toujours damay jàpp ne rek sama doom moo baax mais yow mi ma may sama doom moo yow sa doom moo bon wala moo am sikk donc dama bëgg ñu xam ne gaa dëgg la Euh, saabu ba ndey di sange doom përngal ba du mas a jeex wante kenn ku nekk war nga xam sa sikkus doom xam nga doom boo ko juree nàmpal ko yar ko ba muur ko mu dugg ci néegub sëy xam nga lu mu capable xam nga lu mu capable donc yow bu ma la mayee sama doom mu ñëw di sëy ak sa doom euh, lii ngor ci man lii dingita ci man liy personnalité ci man mooy boo ñëwee nga clamé ma sama doom rek war naa déglu xam lii nga wax lan la ci sama doom def ak lan la deful parce que maa la ko may man maa ko jur ko yar xam naa li mu capable mais lan moo tax léegi dañuy jël sikkus doom yi di ci euh, boo seetaanee maa benn benn série fan yi rek euh, maa ngi ci capté lu am solo xale bi moo moo yaayam bu nee moo rey xale bi inspecteur bi dafa bañ ne xale bi moo rey papa ji mu ñëw insister laaj ko lan moo tax nga insister ci bëgg a accuser xale bi mu ne parce que dama xam li yaay capable pour défendre ko doomam donc loolu bokk na ci li nga xam ne moo yàq société bi euh, man Faty doom ci ñëpp la neex te gis nga doom te gis nga doom euh, soo bëggee mu sakkan danga koy yar sakkanaayu doom mooy ci mi ngi aju ci nga yar sa doom parce que soo ko yaree déjà bu dee jigéen fu mu dem dina fa mën a nekk yàlla nag mooy boole ay nit mooy jeexal ab diggante su diggante ba jeexee mu rafet ca lool man faa daaguwaat néew na lool jigéen ñoo xam ne kër ya ñu tasa mën nañ fa demaat ak néew néew na jigéen ñoo xam ne fu sëy ba divorcé fa ñibbi seen ay parce que lañ tax mënuñu faa demaat ñoom ñoo ko fa def. waaw waaw Bintu ba tey li nga wax dégg la ndax am na ci sikk si dafa am ci jigéen ñi am ci góor ñi ndax am na di nga sëy góor tamit mu nekk tamit nit ko xam se ne dafay xaw a yara ko xamadi du la yore ci yor yor la ci yorin wu xamadi tamit est ce que loolu tamit eh, tamit du indi ay jafe-jafe ci sëy yi nga xam ne sikk yi boo ko dee xool du ci jigéen ñi kese de. maam faatee dama la bëgg xamal ne la góor. bu reewee rek dafa judd ci doolay baayam góor. su reewee rek dafa juddu ci doolay baayam. Mhm. ndax lan luy loolu. judd ci sa doolay baay mooy bi nga juddoo dangaa fekk sa papa am lépp mën lépp nga juddu ci teraanga yaru ci teraanga kooku pour nga yar ko en général du yomb gis nga ku juddu ci pauvreté bew ak réew du la yomb. non foofu laa jëm ak yow foofu laa jëm ak yow mais ki juddu ci doolay baay mit bu reewee ay parents la parce que. fekk jud da ngaa judd fekk fi teraanga xamoonu teraanga teraanga woo doom jooju danga ko war a yar ba ku mu mën a takk indi ci kër gi tamit yor ko parce que en général divorce yu bari yi nga fiy gis nii ñi seen loxo jotul seen ginnaaw seen i jabar tasuñu de waaw ñi seen loxo yi jotul seen ginnaaw ñoo ñu wuñu ay divorce de ci góor ñi laa lay wax ni ba tey mais góor ñi nga xam ne dañoo am yor mën ñooñu ñoo ëpp lu ñuy lu ñuy lu ñuy tàggoo ak seeni soxna parce que réewande la jaay seen soxna parce que nit ki su fekkente ne da nga ko bëgg a am da ko bëgg a wan da a wan li nga am ak li nga mën mais am na gor ñoo xam ne kenn mënu leen a jënd gor mi ngi waaw gor si nga xam ne dafa regg démb tey doog a ñëw ah, donte ci laaxu bisaab la ko defee ak laaxu caaxaan ak cere wala mbaxal sax boo ko bëggee jënd wala nga teg ko ay tànk ci sa ginaar yi ngay saaf bu dee nit ku am personnalité ab juddoom ñuluk ko dala fay bàyyi dem ñibbi sa yi li ko mën a yàq dafa bëri ci ci ci ci façon yu bëree bëree bëree bëri sa yi mi ngi ciy yàqoo mais góor moom maa la xamal ne la su juddoo sonn fekk baayam sonn yaayam sonn muy daw bëgg yaayam ne ci teraanga muy takki soxna dara taxul lu dul noppal yaayam ji nga xam ne ba mu àndeek ak papaam ba léegi toog ba léegi jógul muy wut lu teral ndeyam ak baayam bëgg wut soxna indi ko pour yaayam noppaliku kooka du tala réew dañ war a fi dafa wax ne ku ñu wàccul doo ware mm-hmm. waaw dégg nañ soxna Bintu bi waxtaan wi neex na trop waaye comme tey ji fi nga daaneel tamit mu bëgg euh, ñu xam ne tamit doole baay comme sa yiw comme war a réew tamit da war a fexe mel ne euh, ni sa baay ndax doom ju nekk dama defee ne xanaa war nga li olof Njaay naan dëbbi dëbbinu sa ndey waaye tamit dëbbinu dëbbinu sa baay ndax joom ja sa baay am ba def loolu danga nga war a fexe tamit ngir ki yar moom dafa nekk lu am solo loo xam si ne dafa baax te bokk ci li nga xam ne tamit dina defaraat sa lan nga yaakaar ne fi ñu toll nii buñ ko defee dinañ xaw a jàpp ne dina xaw a tane waaw boo kii kii fekk ci tera kii juddu ci teraanga baayam ngaa warul réew mais ay parents ñoo ko yarul ndax euh, néew na lool nit juddu ci teraanga am doole ñu di la yar bareetul léegi bareetul wante li nga xam ne daal jàpp naa ne suñ ko defee sa yi mu tane ñu defaraat jikko yi góor ñi defar seen jikko jigéen ñi dafa seen ko parce que tamit d'accord ma toujours sëy bi ñu koy féetale jigéen ji muñal muñal muñal mais ànd boo ñaan yàlla mu dem barsaax keroog bi ñu la mu muuree lañ lay commencé muñ loo mais kon muñ googu ba kañ la jëm <laughs> du jigéen ñëpp ko man de ndax muñ moom dëggantaan muñ baax na am na solo lool waaye na fekk sa xol nangu ko ndax man sëy la ma gëm d'accord ko boo demee ba sa xol mënatoo muñ muñ ko fii na la leer na boo ko continuer doo fa am baax loolu daal la te xol bi mooy ci mooy sa mooy mooy mooy sabab doom ji loolu tamit na ko jigéen ñi xam gis nga ñu moytandiku nekk ci kër di fa sëy ànd ak naqaru xol boo xam ne boo nekkee sa sa borom kër ci biir néeg amoo fa benn mbégte amoo fa benn xol bu sedd mënoo ko faa jëfal benn jëf ju baax te boo nekkee ci ëtt bi di liggéey di foddi ree soo liggéey ñu ne li ndayam doon daj ci kër gi ak doom ji ni mu boone fekk ci sa doom ma nga yàqoo ci biir loolu tamit amul benn sens am na solo am solo soxna Bintu ñu daal di gis ne émission bi xam naa jeex na ñu daal di lay bàyyi nga daal di tàggatoo waaw maa faati ñuy tàggatoo rek macha allah di la wax ne kontaan nañ torop ci invitation bi macha allah di leen ñaanal rek fi ngeen bëgg a egg yéen ko xam yal neen fa yàlla eggale waaye ñuy ñaan yàlla itam mu defal ñu dégg ak ndax itam euh, euh, du gën a xam du gën a man du itam gën a yaru waaye dafay loo xam ne ñun ñoo ko opté ñun ñoo opté ci suñu dund ci suñu vie di di di waxtaan ak askan wi euh, gaa di partager ak ñoom li nekk ci suñuy xol ndax rek bëgg njariñu askan wi bëgg bëgg bëgg bëgg yaatal loo xam ne macha allah ñun ñëpp ñoo koy bokk jariñoo ko ñu ngi leen di ñaanal gudd fan gu ànd ak wér mucc gu ànd ak mos waaye wéru xel xool ak gu yaram yàlla am na ko mën na ko yàlla na waaye soxna Bintu ñu daal koy gis ci émission bi nag ni mu daal di dikkee nga xam ne lu ñu bëggoon a toj ci yax bi lu ci bari gis nga ko leer na macha allah ñu doon waxtaane tey ji ci divorce yu bari yi nga xam se na ci suñu jamono ji mu nekk tamit loo xam se ne tamit yàq lu bari ba ci mbokk yi sax dañ ciy gis euh, sëy boo xam se ne bu tasee mbokk day daal di tas muy indi ay problème yu rëy ñu ci doon def waxtaan tey xam naa ne du lenn loo xam si ne gën nañ koo xam nit ñi rek waaye ngir gën a waxtaan rek ngir defarante ngir lu baax rek lañ ci jublu waaye du lu gën a luñ xam kenn ñu koy sant bu baax nag ci kàddu yu am solo yi nga xam se ne euh, def na ko fi mu matale macha allah ñuy sant nag ñi nga xam ne ñoo di suñuy cameraman muy Cheikhouna Ndiaye ak Moussa Ka ak seex euh, Diakhaté ak Khady mi nga xam ne moo nekk ci montage bi di leen jox dig daje ci beneen émission Taaru Sénégal jërë ngeen jëf Sénégal, teranga ji ne bu koy